ngi non ñëwaat nak si contenu bu ama am solo Cheikh Gadiaga kaddu yi nga xam ne nag won nak na mu nekk nak ay kaddu yo xam doyna war lool mu melni nak yi bu ba pouvoir bi ñu gagné fële sa assemblée nationale am fa majorité na leral projet bi nga xam nak nañ ne lu bari lu am Sénégal mom moko ko waraloon ndax nak amna ay yenen yu bees yo xam nak xewna fi mu melni nak li sénégalais di wax wala ñen ci patriote yi bari na ci moy kena nak justice pour ñi nga xamne nak ñak nañ seen bakkan si xex bi way ñak nañ seen bakkan si projet bi nga xamne man nañ ne ay tiaxan kep la won lool nak dafa wara leer te li tax muy leer dina si bok moy ñu gagné élection yi ngir mëna am majorité assemblée nationale ñu def ay révélation nak yu ama am solo ñeel kaddu yo nga xamne mom Cheikh Gadaga yëkkati woon na ko ñu and ci ak mbiri do mu ne def ci ay révélation yu ama am solo si projet bo xamne man ne ay tiaxan kep a la lool dafa muju dafa nax say nañu ko xam Cheikh Mbacke audio bi defe naa mi ngi ciy wax ni mi ngi ciy wax ni da daan jàppale Adji Sarr waaye loolu moom defe naa ne mi ngi mel na ngeen ne géej gi am na ndox géej gi am na ndox waxuma jàppale Adji Sarr wa daan waaye da daan jàppale état bi ci lim doon def di jaar ci Adji Sarr nga ne ma firnde bi ma dun ma ne firnde bi mooy bi yàlla dogalee keroog jàppante tàmbale am ci ñi daan jàppale aji saar ñu daan jàppale aji saar dama ciy tudd ñaar kenn ki muy Gabriel kan keroog bi yàlla dogalee ñu dalal Kaliphone ci wal fajri mu dajee fa nga xam ne émission bi Kali Gabriel Kane lañ fa dalal Kaliphone mujj ñëw keroog ci gàttal bañ fa bëggee xeex bëggoon nañ fa xeex lu gaa yu bari wax nañ ma ne carrément bëggoon nañ fa jàppante donte jàppante ci waxooy bëggoon nañ fa sax dóorante muy Kaliphone nga xam ne da daan jàppale ci Sarr ak ku mel ne euh, Gabriel kan Gabriel Kane defe naa ni xamul xa ñu defe naa lu ñu xamante xamante xam na ne keroog moo moo indi aji Sarr du bàyyi ma ko indi du maamam du benn mbokk waaye Gabriel kan moo ko indi tribunal keroog defe naa ñëpp seetaan nañ loolu. ma làkkulee xaal bi ñu bëggee jàppante keroog Gabriel Kane bi mu jaaxlee Moustapha Diakhaté la woo Moustapha Diakhaté dafa mel ne fan yi nag. gëj naa koo dégg ni mu daan waxee wante wax naa ne wàññi woon na terme bi mu daan waxee waaye xam naa dana gën a wàññi danaa ñëw ci beneen saay-saay bi nga xam ne euh, libéré nañ ko démb muy trafiquant ba nga xam ne kon ñëpp ko xam muy trafic de drogue ba nga xam ne dañ ko ex commissaire daal ci gàttal naa ñëw ci moom. ala kulli xaal Gabriel Kane keroog wóol police nationale wóol gendarmerie wóol même wasiiru daal xel yi nekk muy Antoine kan la woo. Moustapha Diakhaté la woo Moustapha jaxate ker bi muy dem kan la àndal moom it àndatu police àndatu gendarmerie mais mbàcc Cheikh Bakki Gadiaga mii la àndal ah si keroog bi bi ñuy jël si Gabriel kan ci faj Walfadjri lu leer laa leen di wax keroog Cheikh Mbacké gi mii la Moustapha Diakhaté àndal kon nag bu ne maa doon jàppale Adji Sarr euh, defe naa kenn du ko weddi li ci topp nag mooy li ci topp nag mooy li mu wax gannaaw bi mu leeree ne Cheikh Mbacké Gadiaga wax ji wax ne maa doon jàppale Adji Sarr indi naa la firnde bu leer ci Gabriel Kane ci Walfadjri Moustapha Diakhaté la wo Moustapha Diakhaté ñuy ànd ak Cheikh Mbacké Gadiaga keroog ñoom ñaar ñoo nekk ci oto ba jël dem jëli Gabriel Kane ci Walfadjri léegi nak wax ji nga xam ne wax na ko muy ay audio yoo xam ne nee na génn na Adji Sarr def na ko waaw waaw Adji parce que bi mu dafa am programme bu ñu programmé woon waaye xam naa ne loolu dañu mujj xam ne du sotti muy jaar France def benn film wax wax ju ñaaw continuer xeex bi mais loolu vraiment xam na ne mënut a am dam Sonko defe naa ne wala président Diomaye koo xam ne faale wu Macron <coughs> boo fa demee naan da ngay xeex ak euh, Sonko du sotti du sotti ku ne xam na ne Sonko mooy Diomaye <coughs> Diomaye mooy Sonko loolu defe naa kenn waxatu kon kon léegi li gën rek mooy mu dellu ginnaaw bu dawutoo nit foo loolu rek lay def ñun ñëpp xamoon na looy def parce que état bi ko jàppale muy def la ko ne waxoon naa ne problème Sénégal Macky Sall nekkatu vraiment et nekkatu dañ ko éliminer et finito loolu defe naa ne <laughs> dama koy am nañu gëmutoo waaye biñ gis Macky Sall <laughs> bi defee appel ba ay vidéo danga xam ne di woote ci WhatsApp bi di xëccoo gars yi da nga xam ne kon lam amoon amatu ko amatu ko te incha allahu karam la jëm te bis bu ut kur bi taxawee da ngeen xam ne Macky lam amoon amatu ko ndax xam na ba tey yenn saay-saay ak yenn con yoo xam ne defe nañ ne dese na dara defe nañ ne dese na dara waaye Macky la gën a xam ne deseetul dara. waxoon naa benn mbokk mu doon jàppale Cheikh Tidiane Ndaw ma ne ko bu fekkee Macky yoroon réew mi di tooñ di tëj ay nit di leen tëj di tooñ ay nit di leen tëj fa Macky toogoon jomaay toog fa war ngeen a xam ne ku tooñ war laa mën a tëj loolu laa waxoon na laa waxoon waaja Cheikh Tidiane Ndaw génne mu di ko jàppale ñoo bokk nekk ca daara ji ma ne ko waxal Cheikh Tidiane Ndaw ne ko Macky fi nekkoon ñuy tooñ muy tooñ ay nit di leen tëj ñi ànd ak moom di tooñ ñuy tëj ñooña loolu defe naa ñëpp a ko gis ci reetaan tëj nañ ci ay nit reetaan tëj nañ ci kon bu ngeen fa nekkee bëgg a konnee tooñ Cheikh Tidiane Ndao di konnee tooñ nga defee du ngeen tëj da ngeen toroxal da ngeen tooñ seen bopp da ngeen toroxal seen bopp xam ngeen loolu du am même bu ko Sonko bëgg wala jumaay bu ko sax ñaanu duñ ko nangu duñ ko nangu loolu mooy dëgg ah. ko defee kon li wax ne li Cheikh euh, Mbacke Gadiaga wax moom mooy li ci xam ne moo ca des seen noonu rek lay mën a demee mooy mu wax dëgg nit ñi du jégalu rek day wax dëgg nit ñi nag. man dama d'accord ki ne même France ga mu nekk war na faa mën wax dëgg ah si war na faa mën a wax dëgg su ko defee nag état bi mën na ko baal waaye nag dafa am responsabilité boo xam ne foog mu am muy dafa am ñu ci dee parce que bu fekkoon ne ay fen rek la ay bakkan déewu ci état bi fexe ba bakkan déewu ci su boobaa bu ne ay fen rek la état bi bakkan déewu ci su boobaa ñu mën a xool alal bu fekkoon ne alal ju yàqu rek la ñu mën a xool mais ay bakkan dañ ci wàll. nee naa leen man ba may dugg ci xeex bi xeex dama xamoon ne ay kàcc la ak fen dama ko xamoon mais dama ko xamee man mi nekk ci àll bi ñëw Italie xam ne lay fen la xeex mais da ngeen a defee ne Sénégal bi ñoo ñoo rapport xamuñu ko woon yàgguma wax fi ne Maham Diallo ba ko Sonko di wax ci Kër Massar ne ko da ngaa fen ne ko yaay criminel man nga wax criminel ab crim yow yaay criminel yow mi may renvoyé Sambour criminel damay ne dama leen di wax ne Maham Diallo amutoon ah ah bii mbaam ah excusez kon mbokk yi ma ne leen. bi nga xamee ne Maham Diallo jël na dossier renvoyé ko chambre criminelle ba noppi saaga ca Sonko nag parce que dem na ba ne ab dof la wax na ko wax ju ñaaw foofu wax benn terme bu garaaw boo xam daf ko jëfandikoo nga xam daf ko saaga sax boole ci Sonko ca la demee Kër Massar nag xam ne yëf yi léegi ñii caaxanatuñ ñi dañuy fontu parce que chambre criminelle ca la waxee ma xam ne ko nag yaay criminel bi man du ma criminel xam nga da ngay fexoo dëgg te xam ne waxoon na ko waxoo dëgg wallahi ba mu ko waxee nag waxoo dëgg bañ demee même chambre criminel ñoom juge yeneen arté dama ne lañ mujj wax mooy Sonko moom lañ waxoon ne moo tax ñu indi ko fi loolu kenn topp ko ci maintenant viol dafa viol la lañ waxoon ànd ak yore arme ñu dindi yëpp dama ne juge ba ko dindi ma xam jàlloo ko gënoon a xam loolu fuuf xamoon na ko nañ waxante dëgg xam gi mu ko xamoon xam na ci tabale ak i caaxaan la nekk moo doon mu def yenn wuti sëriñam ah déedéet ngeen baal ma xam naa sembare da orto kon mbokk yu di wax ne loolu moo waral Sonko yuuxu waxoon Maham Diallo ca Kër Massar ne ko xam nga ne du ma criminel ban demee yi wax dëgg yàlla wax nañ ko du criminel yàlla sax nga dégg ay samba boy yu naan dañ koo tuumaal ne waaw nangam jaxasoo nangam mën a Sénégal ba ñuy jaxasoo kenn loolu kenn tëréwul waa Sénégal tëréwul lool ku ne xam na ne ba ñuy wax waxuñu woon loolu donte loolu amul waaye wax dëgg yàlla waxuñu woon loolu ko toppoon ci dafaa wala ba mu demee dafaa jox comme si ñu ko waxee doonte du dëgg ay fen la waaye wax dëgg yàlla waxuñu loolu ay viol la ñu waxoon yore arme loolu la ñu waxoon ah bañ koy condamné nag ma ne Maham Diallo xamoon na bu leer ne loola amul Sonko xamoon na ne Maham Diallo koy fomp ah mu daal di jéngu nag alhamdulilah yàlla defal ko ndam yàlla defal ko ndam ndax moo nekkoon ci dëgg su ko defee kon Adji Sarr lenn rek a ci des nee naa la bi muy doog a dem doon nañ xalaat ay continuer ay fen ak jéem a continuer ci fen yi mais loolu vraiment mënatul nekk mënatul nekk ndax fen du bay jaaw li a di waxee fen du bay jaaw fen du bay jaaw kon nag euh, lu normal la mu daw dellu gannaaw taal di def ay audio wax nit ñu dëgg wax nit ñu dëgg te waxoon na ko ah xanaa nit ñi ñooy font rek waaye waxoon na ko de wax dëgg yàlla ca Maham Diallo jëloon na ay dossier fi mu ne Maham waroon ko wàcc loolu bu xarit bi taxawee Maham waroon ko waat ne ko waaye pourquoi Adji Sarr indi lay audio yoo xam ne enregistrement la Baye Mbaye def ko ko du du sax ay audio enregistrement la ñu versé la ko mais dossier lu tax ko ko. ah <laughs> lu tax toppoo ko loolu war naa mën a nekk ay yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne lu ñu xam la buñ ko delloo demee ba tey ci la ma leen waxoon keroog ci la xewaat yeneen yu bëree bëri yoo xam ne yu ñu ci rey réquisition téléphone bi ñu def lan moo tax ñu rey leen ci loolu. loolu yëpp lu lu bees la loo xam ne incha allah nañu taxawoon Sonko ba ba yàlla def sànkuñu ko yàlla def ndam am incha allah noonu lañ koy taxaweet ba deret ñi ñu ci waxuma waaye ñi ñu ci seen deret. wala ñii nu ci gaañ xataa ñu ci yàq seen alal loi état bi topp leen ba incha allah ku ci tooñ teg la ci yoon te loolu incha bu soobee yàlla ñu baax a baax di